mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ndigalal Maulana al Khalifa Cheikh Ahmed Ibrahim Niass ak ci teewaayu e, ndawam ci ndigalu Maulana Cheikh Mouhamed Lamine Ibrahim Niass mi nga xam ne moom mooy représentant xalif fii ci Dakar waaye ci ndigalu ak ci teewaayu Maulana Cheikh Mouhamed El Ibrahim Niass ak e, jigéenam. Eh, sayida xaadimatul quran sayida mariam sayida mariam Niass waaye ci ndigalu Maulana Cheikh Abdoulahi Dia mi nga xam ne moom mooy président d'honneur dairatul ola waaye ci teewaayu itam suñu président d'honneur muy sayda eh, sayda Jaara Njaay ci ndigalu sunu sëriñ Maulana murabbil qawmi ak ci yam al ustaz Ahmed Ba ñun waa dairatul ola ñu ngi leen di yëgal yéen ñëpp gàmm go xamne ñu ko fasiyene amal inshallah samedi le 3 mars inshallah rabbi ñu ci wo mbokki talib yeb di len wax ne programme bi inshallah 9h ba 13h danañ amal inshallah mayam deret foofa ñu ci wo mbokki talib yeb waye buñ démé ba 22h danañ dalal gan ñi gannaaw buñu réré ba nopi 23h danañ commencé conférence bi ki ñu koy defal suñu mbokk al oustaz al alim al allama yusuf ñang waye buñ démé ba inshallah rabbi conférence bi jeex. Euh, ci la gàmmu gi nag di commencé incha allahu rabbi ki ñu koy defal di mawlaana murabbil qawmi hibrul faydati wa muzilul wahmi wa mujaddidul fuhumi mawlaana ustaz ahmed ba gàmmu gi nag ki nga xam ne mooy animé zikar yi mooy a cheikh ibrahima ndaw bi ñëpp xam ak jiilul jadid ci njiital cheikh kabir Diop waaye ci teewaayu mbooleem zikarkatu pay bi ki koy modéré incha allahu rabbi mooy cheikh Baye Diouf géwélu Baye. jotay bi inshallah allah ñu ngi koy amal le 3 mars comme ni mu leen ko waxe waye ci mer mu ci terrain parce que ba deen rek lycée Ngalandou Diouf inshallah rabbi ñu ci rendre hommage sunu bay. papa Yunus Diallo mer Mermoz ñu wo woo talib yeb assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e den calmina kadi e denndaangal mami e mbimami eɗen e, tinan noddaandu danu ngannduɗaa hore ma ko alliyankooru hikka wonata jeenayi ɓiiru danu fewde e gammo ngo ganduɗa hoore ma ula ena waɗango e keynal oustad ahmad ba kadi caggal nde yimɓe dañi yamirore e khalifa hadara o khalifa ɓesgu cheikh ibrahim ceerno men khalifa men mawlaya cheikh tidiane ibrahim e yamirore kadi naibul khalifa woni ceerno mouhamadoul mahi ibrahima nias e tawtorede mo e taw e kadi e yamirore kadi e ceerno men kadi ɓi ceerno men woni baba lamin nias mo ganduɗa hoorema kanko ɗo ɓesgu cheikh ibrahima e almuɓe makko ɗo e dakar kadi ena teddinira joɗde nde e pappa cheikh woni khalifa cheikh ibrahima nias e teddinde hen kadi jatigue men bam men woni papa diallo toon to mermouse wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sant yàlla di julli ci mawlana rasulillah di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu afrique di nuyu senegal di wax ne jotaay gi nga xam ne ñoo ngi koy préparé le trois bi di ñëw ñoo ngi koy tuddee alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass nga xam ne mooy suñu waajiru ruuxu mooy suñu xalifa tuddee nañ ko ko ngir ay qualité yu ko yàlla jagleel jikko ju rafet tabe mbaax xam-xam wilaaya macha allah benn bés ca Nigéria toog naa di ko xool di xalaat macha allah wilayam ak mbaaxam ak tabeem ak xam-xamam sama xel jox ma ay bayt ñetti bayt ma ko ciy wax ne inni nazartu ilayka nazrata aqlin xool naa la xoolu ku am xel mutaamilin mustaxbirin mustafhimi xoolu kuy settantal di laajte yow yaay kan teg point d'interrogation ci sama kanam ma ne yow yaay kan wa sabartu kulla sabri xaalaka fi tuqa ma nattu nag mboolem nattu sa xaal ma xool la ci ragal yàlla wal ilmi ak xam-xam wal xuluqil jamilil akrami ma xool sa jikko ju rafet gi waaye résultat bi mooy fa araaniyal mannaanu annaka fil wara ramzul ula wal badru bayna al anjumi yàlla wan na ma ne yow ci biir mbindeef mi yaay ramzul ula junjuk kowe ñun suñ daayira bi daayiratul ula lañ ko tuddee te yow yaay ramzul ula yow yaay junjuk kowe te daayiratul ula ba may xalaat bi di ñëwal ak léegi man na ñaar fukki at ndax 96 la ca caaro Caaroy booba madrasatul ula lañ ko daan tuddee ñu ñëw ba Mermoz tuddee ko daayiratul ula ma ne ko ma xool fekk yow yaay ramzul ula wal badru baynal anjumi yaay weer diggante ay biddiw kooku lañ tuddee gàmm gi mu nekk xalifa Cheikh Ibrahim te nekkoon na ko avant tour bi di ñëw ndax léeg-léeg nit ki dana jikkoo jikkooy xilaafa jikkooy xalifa mu dem ba turu xalifa bi dab ko waaye yàggoon naa nekk xalifa yàlla na ko yàlla sàmm bàyyi ko suñ kanam ànd ak wer yaram ak yokkute moom ak rakam aw xaasatan Cheikh Mahi mi nga xam ne moom moo ñu faral toujours di teewal ci gàmm gi di nuyu tamit Baba Lamine di wax alhamdu awalu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min xiinin ila xiinin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamun alal mursaliin walhamdulillah